moo koy jàng. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ñu ngi tàggoog moom. yàlla na fi yàlla yàggal la wér. amiin koo xam ne dundam yëpp. ñun dañ ko ba léegi li ñu ko xam mooy léppam rek ci bàyyi la. <laughs> loolu nag doy na yóbbul ku jëm àllaaxira. dëgg la dëgg la. <laughs> yal na yàlla deseel barke. amiin njabootam. amiin njabootam te njaboot bi bu ñu ko waxee mooy. doom yeeg taalibe yi desal njàngaleem nga xam ne yar na leen ñu continuer fekk loolu nga continuer mooy dundam moom daggut mu ngi dem nii tey waaye dundam du dagg insha allah yal na yàlla desal barkeem yàlla utalal ñu lu gën ñu yàlla dëkkale ko Mawlana Cheikh Rahma dëkkale ko Cheikh Tidiane dëkkale ko Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam azamllah jana wa jana ajalla wa iyyakum amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin